لببتين رب خير عافية وللحياة حياة سافية من حياتي بفرود لجنة بيتي نادي بنا ñëw na ci li nga xam ne tey mooy doomu Ndiaye Mbène Serigne Mbacke Diop bëgg lu baax PDC ñëw na ci nga xam ne tey jii sëñ Mbacke xanaa lay waxatoo dara. sëñ Fallou ko xokki saa ci gas yaakaar bàyyi Serigne Abo na ñëpp def nañu màggal Serigne Fallou Alaaji Fallou Alaaji Fallou bàyyi Serigne Fallou Serigne Fallou bàyyi Serigne Abo Alaaji Fallou ana wal muxtaar man maa la ko way yow Seexuna Fallu yaa moom yëf yi may ma ji laa law laa ko Seex Fallu law laa ko Alaaji Fallu law laa ko Seex Fallu bu xeewal walwale te na ngeen way Seexuna Fallu Alaaji Fallu loo mooy fadlun mooy aasif mooy faarisun fadlun mbaggeeg mu soobara ki ma jute mooy wasila bi fam lu xotti saadir bu tas yaakaar du gaaw ñu koy laaj ku laaj ma may la nga géej jël alaaji fàllu looy xaliw la subhaana rabbika rabbil maasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf Ndiaye jërëjëf sëñ kontaan naa jërëjëf sëñ Xaadim sama xol sedd na lool waaye Balla Gaye champion bu mag bi yegg si na léegi di génn sëriñ Mbacke Diop Balla Gaye 2 wala boog Omar Sakho ñu ko xam ci Balla Gaye 2 yegg si na léegi moo ngi dend ak nga xam mooy Alaaji Malick bu baax mii di ko gore di ko tedd nag bala ki nga jagleel Alaaji Maalik mi nit ku baax ku la bëgg te sopp la waaw ak mbooloo tuub baax nag di jégalu dañuy daal di li moo fi indi daal di continuer programme ndax loolu la ko tudd bi wax nee nañu tudd bu ñu paree continuer programme sëriñ xaadim loo gay del si la ko jóg mbaag gay del aale bi ci daam tafsir bi ci gënee bis yëpp foo dem rek tubaarkàlla sa jikko tubaarkàlla ak nga fokki taalib yooyu bu baax nag dañ koy may loxo mu jóg jërëjëf si la ko jóg mbaag gay del aale bi ci ndaam miin nañu nii Dis-moi, cher. Attends. Voilà. Eh, bon xam naa bala ñoo tudd dañuy jox Alaaji Diop sa wujur mu indi kàddu yi ñaanal mbooloo ñu uufal ki nga xam ne mooy imaam xale bi liir bi ñu door tudd bi papa bismillah jërëjëf fàllu fàllooy fàllooy xaadim sëñ fàllu moo ne may sëñ bamba moo fi nag moo fi jógee kii bu ñu gisee doomi sëñ bamba la sëñ fàllu loo ndeysaan waaw ñu déglu tuuti léegi sëñ fàllooy sëñ fàllu sëñ tubaay sëñ tubaay waaw ñu déglu jërë ngeen jëf asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ñu am mbégte lu rëy ci jataay bii mbégte loo xam ne mën nu koo génn ci sunu làmmiñ lu dul ku nu xool rek xam ni dégg nañu ñi fi ñëw ñëpp sëriñ Mbàkke yaa leen fi soo doonee sunu jarbaat nu bokk ak sa yaay nay ak baay bu nu la tooñ fu mu séen di la tooñ bu nu séenee dañuy daw man nañu tooñ sa baay bii te kenn du la tooñ nit ñi ñu nag ñu riis ci jataay bii faaw ñu tiitaroo ko man dara feesul sama ndax Tuubaa laa jógee kii toog Balla Gaye nii fekk naa ko kër sëñ mu sëñ Baara mu taxaw ci balcon bi ni am naa problème ma ne ko ban problème mu ni ma dama bëgg a siyaare ji jumaa te mënumaa dem ndax bu ma génne mbooloo topp ma daa ma wax lii kër sëñ Bass ñeent ñi fi koo xam ne nag kenn la muy xaadim loo gay del lu mu amul lu mu amul yàlla da koo yorul sëñ Moustapha mooy bàyyam dëkk Gere de Dakar moo ma ne maa la bëggal sama bopp bàyyi Moustapha Lo sëñ Xaadim loo koy dee moom ma woo ba ma ñëw mu jox ma fukki junni ni ma damaa bëgg nga liggéeyal ma pour junni may ñu ko police bi mu yëkkatiwaat fukki junni teg te ne ma dama newoon ne la bëgg naa ci police bi ñu ma bu police bi demul alxuraan form lu ma bëgg dinaa ko am bu dem Bagdad xam li may wax man du ma gis lu lool rek ma ñu bis dina lànk loolu mu doog na lay ñaanal nga yàgg lii lépp yow yaa ko duppee Serigne Mbacke Madina muy sëb Serigne nga tuddee Serigne Cheikh doom ma fekk ngénte la yabal ma fa ne ma dama doxal ma ko sëñ Cheikh gërëm ma fa duggee daal ni ko yori caaxaan doo jaxasoo moom yal na nga fekkee lépp xale yàlla bu la ci nettali dara suñu xol seet na buy suñu yaakaar dolliku na da ngaa wax noonu tudd ba noppi su ko jël kàddu imaam a ngi nii toog war a tudd. ñuy am mbégte ci jataay ndax man bër ci démb ay na damaa wax lu ma neex barke sëñ Tuubaa diwum diw mi lam diwal lu koy diw kon imaam daaw ni nan musul seytaane jàng faatiya ayatul kursi xandaxee naas ñaanal ñi tax na daje saa borom musal ko ci ñam war Omar Sow anam non ana ki doon joxe xaalis Omar Sow daf maa joxul xaalis moo tax Omar Sow ana Omar jawat dama ni fi ngay jógee di fa jóge bu la jógee doo fa jóge Sëriñ Tuubaa ni bala su man bala si ni bala su man yu bari su mun takk man bari si man waaw kay waaw kay defal naag rek defal naag ah bettu moon waaw ah, kay léegi nag nan def li ñaan def ñaan di nan def ñaan def na ko may maam loolu lu duuma ko waaye suñ Mbàkke la nga ba am lii ko bàyyee ci dig na la te bàyyi la biram mu ngi nii fu la gërëmuwuloon day yable li tax mu yónnee ndaw doy mu ñëw ci biir dëkk bi xam na ni ma toog ku nangu sa bàyyi tungoom la nag sa bopp féete kaw te dangaa nangu nu tungoom la salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbooloo di leen ziare ci weeru xaram di ñaan suñu borom defal ñu ko di yëkkati kàddu yu nuyoo di ko teg ci Serigne Mbacké Diop ji ma waral jotaay bi di ko nuyu di nuyu waajuram Serigne Modou di ko wàcce wàccuwaayam di ko ñaanal suñu borom tabaaraka taala guddal fanam wéral ay cëram di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp nuyu sëriñ si ak imaam yi ak dañoo nekk di fi teew yëpp di nuyu nga xam ne ñoo fi teew bokk na ci ah Balla Gaye ak Omar Sow suñu borom nag moom mooy sopp tànn na ñi ko neex ci aw xeetam fësal leen wallaay dëgg la wallaay. defal leen fu jëm ñëpp topp leen. maam yaa ñàkk ñan. loolu yàlla ko def kon nag ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay ñun ñëpp di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq di gërëm bu baax eh, sëñ sëñ Mbacke macha allah xale bu baax bu am yar bu am teggin macha allah ba defee ah ñu jublu ci dundal sunna si rek te mag ñu baax ñi. ni ñu ko waxe woon mooy baat rek waa Touré moom lañ ko tënkee woon an yaay waaw waat daana am na ñuy wax waa Touré maanaam wat tudd rek baax ni lool jàngale nañ lépp yal yàlla taas na seen ba bu ko defee

ana ki ne ci gàtt bi na waaj te déglu ndigal ay ca ana ki ci xar mi na defar nan lay watal nan lay watal na ci gàtt bi na lewetal ah sawe jërëjëf imaam ne barakallah ne doom ji tuddee nañu ko way juróom bu jigéen Aysatu Jóob Aysatu frontière bi ak Malick lañ ndeysaan المختار say Georgia. jërë ngeen jëf nañu xëyal soxna si mu dugg si ñu xëyal soxna si mu dugg si nañu xëyal soxna si mu dugg si ñu xajal soxna may mu dugg si mooy soxna Sëñ Mbacke Diop tubaarkàlla macha allah boo gisee ni say bokk jëkkër taxaw ak yow lii war naa xamal yaa ngi ci gi di fi def lu baax. Ah, waaw kooku moo tubaarkàlla sa jëkkër Amar Sakho waaye soxna May. nee na nga taxaw ni ñaari Omar yi seq la ngeen fa taw Omar Sakho taxaw ak ñaari Omar war naa mën a nekk ñii ay wënde nañ Serigne Mbacké Diop lañ ñii di kenn ci Serigne Mbacké Diop. ndeysaan dinaa ñëw waaw ci moom laa jëm sax. waaw mu gaaw tuuti waaw. ayca ah Serigne Serigne may soxna may loxo mu mu yëg ci kaw tribune bi. amoon na ko de amoon na ko de dafa am gàllankoor rek mu yóbbu ko nekk gannaaw. Alxaaji Moustapha Mbaye